Salam alaikum, mangi tudd Yacine Dion, je ngi dëkk euh, Médina. man suis présidente euh, association vision du développement. parce que dañu am euh, beneen gis-gis ci développement moo tax ñu ko vision du développement. suñu gis-gis mooy former les jeunes c'est sûr parce que dañu gis des jeunes Nous dañ leen pour ñu liguer et tout mais duñu arrivé mukk ba yor seen ay entreprise ba mu mujjee chaque fois day tomber à l'eau vraiment nous nous ñun nous disons non dañu bëgg ñu former jeunes yi di woo autorités yi pour formation des jeunes avant investissement parce que soit forme jeune bi boko ko formé wul loo jox duko ko jariño té dañu gis né Medina ak yenen localité yi dafa bëri ay jeunes yo xamné amuñu ben formation légui ñu ne politique yi fa ne bari nañ mais ñun gisuñu ci suñu bop vraiment amna na ci ñoo xam ne peut-être ñu ngi fa di gorlu mais stratégie bi nga xamné ñun mom lañu gis pour teg ko di def ay formation et tout gisuñu ñom ñukoy def légui ñu ne ñun nañu mobiliser wu nek association bo xamné ne dafay dëgër woolee nek ñom sen levier comme ñoom dañ fi nek né jeunes yi lañ fi nekkal légui ñun suñu association pare pour ñom ñom ñu aider ñu accompagner ñu ñu ñu aider jeunes yi parce que vraiment bëgg nañ taux de chômage bi nek ci localité yi diminuer nak création bi euh, bon dañu woté def réunion gis ay jeunes yu déterminé wu ñoo xam vraiment ñom dañ né li mo leen intéressé xam nga jeunes yi lélé léeg di nga leen gis ñu tok seen rukku nga défé né dara néwul seen bopp mais biñ leen woyé waxtaan ak ñom ñom ñep dañ contane ne ñun daal li ñu ngi ci même euh, jeunes yi les femmes xam nga population bi nga xamné la population vraiment vulnérable ñep né association bi da leen intéressé parce que ñom daal bëggatuñu ay politiciens yu leen di woo si lo xamné jox la xaalis ngeen seddo coow lii wax ji ñoom dañu bëgg ku leen former jox leen ñu am métier am lu ñu téye loo xam ne day dem ba ba ñuy dee dinañ am si lu ñu jàpp. waaw parce que tamit euh, lenn dafa am da ngay ñëw fekk leen ku ci ne am sa projet mais xam nga projet dafa am ñoo xam ne ñoo méngoo ngir bind ko mu jaar yoon ñoom bi ñu waxtaanee ñoom ku ci nekk am nga projet. nga Sénégal fii koo ci fëgg nee na la am naa projet mais projet aussi pour nga mën a jaax fi nga xam ne dañ koy financer il faut ñu bind ko am nuñ ko tegee ci papier yu leer.

ñun dañu ne ñom daal amna lu dess bari bari bari vraiment liñ nane cri des jeunes ñun ensemble dañu tollu ci yuuxu parce que dañu gis ne suñu dëkk bi Sénégal lu fi am ñun jeunes yi nous ko ñun suñuy samay say doom doomu ñeneen xamuñu fu parce que dañ euh, la culture daf mais dañu ci sabar rek dafa dem ba nga sax bu fa sabar amul duñ la donc ñun nous disons non xeexuñu kenn newuñu dañu ànd ak politicien bi newuñu dañu ànd ñun dañu def suñu association pour ñu former les jeunes parce que amna na benn formation buñ ñu defoon journée de lancement bi en entrepreneuriat xam nga pour xol jeunes yi ëllëg bu ñu yoree seen propre activité nu ñu koy mëna gérer def nañ ko vraiment jeunes yi bëgg nañ ko ay jeunes yo xamné xalaato xalaatoo woon sax ñi li dina leen intéressé vraiment dañ ñuy woo di interpeller naan ñu kañ la lolu di amaat kañ la comme xam nga jeunes yooyu amna luñu bëgg mais dañ gisul ku leen yi dimbali ñu parrainé le ministre de la jeunesse parrainé ko le directeur des impôts et domaines parrainé ko monsieur le maire euh, soo gisee ñu parrainé ko ñooñu ñëpp parce que dañu gis ne ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse de la jeunesse bu ñu ko waxee Sénégal bi yëpp la jeune. yëpp du ministre jeunesse su Pikine du ministre jeunesse de Guédiawaye comme bu ñu ko woowee ci yu mel rafet même su ñëwul mu yónnee xam nga accompagner ñu ñu sentir ne suñu leader yi fi li ñuy ne yi leen fi le ministre des impôts et domaines monsieur Cher Tidiane euh, directeur des impôts et domaines mm, pardon le directeur des impôts et domaines aussi parrainé gis nañ euh, mu ngi mais tamit liñ nit mënul def pour même bu ndaw mu xam ci yëngu ñu a am solidarité am entre euh, les politiciens et les je sais pas les <laughs> leaders euh, euh, les leaders politiques ñom ñep ñu ñu ci mais gis question est-ce que jeunesse bi la après jeunesse bi parce que nous liñu jox ñu ñom ñoy xol peut-être li dafa am lu mu laaj ñu accompagner ñu suñuy propre moyens lañ jël def ci lepp këpp ko ci parce que dañ ko gëm té tamit duñu yem fi dinañ élargir formation yi de quartier à quartier jëm xol jeune ñu leen di dimbalee ñun ay jeune lañ comme ñom mais nit ku ne ak la yalla may té ku ne am lu yalla def ci yow lo xamné ben mission bo wara dox peut-être yow yaay tok di nelaw wala nga juk dox ko ñun ne dañu paré suñu mission moy euh, ñu permettre euh, aux populations vulnérables xam nga de se prendre en charge à travers l'information et la communication pour mëna à am luñu japp parce que ñun dal ñun ñun liñu gëna gën a ciblé li ñu gën côté formation wa parce que ñun gis nañ ne ku ñu wul amo dara ben métier amo dara lo xam xaliss buñ la jox mu naaw

te ñu xam ne tamit ñun tamit du ñu arrêté fii malgré que seen soutien jotuñu ci dara mais xam naa peut-être dinañu soutenir laaju ñu leen nag ñu jox ñu ay millions wala dara parce que ñun dañ bëgg côté formation lañ leen gën a woo après lu ñu mën a nag ñu accompagner ñu ci loolu suñu projet mooy euh, organi euh, def ay kii euh, tout transformation parce que am na tamit ñu pare pour aider ñu ne ñu côté transformation fruits et légumes xam nga def ay atelier parce que comme la fois passée bi ñu defee formation bi en entrepreneuriat foofu dañu permettre aussi question réponse yi ñu xam jeunes yi ku ci groupe bu ne lan mooy seen ay projet parce que aussi jeune bi mën na am ben projet mais dina am lu ne ci luy nelaw lo xamne ne len waxtane di nga xam ki lan la meuna a gérer ëllëg comme li ma la wax rek am ñu xarañ ñoo xamne ne nañ pour aider ñu ñu def euh, suñu défé suñu ay formation et tout tek ay projet am comme li ñuy wax rek am na xamne buñu xamé fi nga jëm do yegg mais vraiment li ñu tax moy dimbali askan bi dimbali jeunesse bi li may sama dernier mot mooy euh, comme euh, jeune là té affaire jeune là moy euh, lima liñu metti rek lima nan la suñu cri suñu yoxu moy sama dernier moy mooy euh affamé affamé affamé euh, xam nga affamé du pouvoir bi fi nek nañ koy tek ñu ko jeune yi ñun ñëpp buñu bolo ku ci nek ci ñom am nga parti bo nek mais nañu tek lolu ne jeunes mo ñu taxaju bu déssé lu jappalé sa gox sa localité ngén ték loolu yépp parce que légui dafa doy war dafa doy politique bi dafa nit ñi ba nga xamné dañuy faté lu bari dañuy faté te dañ leen ték ci yenn pour ñu gérer yenn sama dernier mot du nuyu ñëpp di sant ñëpp bu dafa am lu ci